asalaamaaleykum mbokk yi comme ni ma koy defee saa su damay ñëw ak yeen ci ben information bo xam euh, jotnako euh, moy nguru Sénégal li nga xam mom la décidé actuellement mom moy exilé ki nga xam mom moy euh, Ousmane Sonko. parce que japp nañ ni actuellement lool rek mom moy solution parce que tant que Sonko Ousmane Sonko mi ngi nekk Sénégal donc pour ñom ak dal du mëna am tant que Ousmane Sonko mi ngi nek Sénégal li nga xam mom lañ bëgg def donc duñ ko mëna a def donc ñu japp ni actuellement solution bi loolu la opération bi nak ni ko tuddee euh, Pinet-Laprade Pinet-Laprade nag suñ ko waxé ñun ñëpp suñu xel ak suñu xol dem ci colonisation voilà euh, mënon nañ ko tuddee sax opération Leclerc parce que Leclerc moom moo génne woon rapport bi nga xamné ne moom accusé nga xamné moy Serigne Touba bañu déporter ko bañu juger jugé ko déporter ko fi nga xamné mom moy mooy Gabon nous ko clair euh, Leclerc mais en tout cas lu manti am opération bi moom euh, pinet prendre la tudd et paré nañ euh, pour exécuter ko parce que actuellement toutes les conditions sont réunies pour que nous mën faire def bobu lay opération te soo leen fàttalikoo ci ay jamono ci mois de mars 20 mars bi Ousmane Sonko nekkee hôpital voilà def na une déclaration déclaration bobu non amna lu ci waxo jëm ci. objectif bi nga xam ne moom la nguur gi am pour génne ko Sénégal donc ñu déglu ko ñëwaat commenté ko. ñaareel bi mooy ci wàllu politique ñu dañoo jàpp ni combat bi fii la biir Sénégal te bu ñu fàtte mukk ni saa su jëmm jaaxalee nguur ba xamul nu muy def ak moom day fexe ba génne ko ci réew ma moo tax noonu la ñu génne woon yonent yi ci seeni dëkk. nan la ñu génne woon mag ñu baax ñi doon résister yépp ci seeni dëkk fu nguur mu sa jaaxle ba xamul nu muy def ak nit rek day fexe ba mu génn dëkk bi te ñaare boo xasee ba génn dëkk bi mën nañu jafeel dellusi bi ci biir réew mi moo tax nun duñu génn réew mi combat bi fii la ñu bokk kook ñuy xeex ñépp voilà comme ni ngeen ko déggee Ousmane Sonko wax ko loolu euh, mbébét la bu yàgg bo xamné nguur gi yàgg ko am mais jamono ji ñom japp nañ ni euh, les conditions sont réunies parce que actuellement isolé nañ ki nga xamné mom moy Ousmane Sonko euh, cité Keur Gorgui kenn mënu fa accéder donc pour japp ko yobbu ko dafa yomb il suffit juste ñu wàcce ben hélicoptère donc jël ko yobbu ko ci réew mu leen neex pour le moment nak destination bi mënu guñ ko xam xamaguñu actuellement suñ ko jëlé fan lañ ko bëgg a mais ce qui est sûr et certain moy euh, paré nañ pour exécuter plan bu ñu mel ndax opération bi taxaw na également ñi ko wara exécuter aussi taxaw na ñi ngi euh, actuellement jamono ji ci yan condition lañ ko mëna amalé mais lu ni mel mom yëkëti nañ ko te rëdd nañ ko donc Sénégalais yépp euh, bàyyi ci xel que ni ñoom actuellement dañu japp ni euh, Ousmane Sonko lui eu def trouble à l'ordre public Donc, donc problème yi Sénégal nara am donc sa présence sur le territoire national tant que minifi problème yoyu noonu eh, day wéy di am donc objectif bi kon isoler le plus rapidement possible euh, so leen gisee même euh, dañ ko baye ak son passeport parce que y a des photos yu il gis ngeen ci documents il y a le passeport de Ousmane Sonko donc loolu day wane ni baye nañ ko. Euh, subtilement avec son passeport pour que ce génnee Sénégal rew mu bloquer les frontières pour meuna parce que à l'étranger euh, voilà pour pour c'est moins grave même si continuer de wax donc c'est moins grave mais le problème pour eux c'est sa présence au Sénégal c'est sa présence sur le territoire national et qu'ils sont en train de tout faire euh, pour isoler ko parce que le Sénégal tàmm na euh, vous vous rappelez defoon nañ ko fi homme politique donc exilé ko rapidement donc yóbbu ko ci lu gaaw tax et ko te kenn donc nous, jàpp nañ ni euh, avec Ousmane Sonko également c'est possible de le faire c'est possible de le faire et que loolu euh, situation la bohame exécuter ne nañ ko réfléchir nañ ci bu a baax ba conditions yi pour nous mën def en tout cas nous Sénégal yépp xamee noonu donc plan initial en tout cas le plan de guerre aujourd'hui de l'état du Sénégal mooy exilé ki nga xam ni moom mooy euh, kii di Ousmane Sonko génne ko Sénégal parce que jàpp na ni actuellement au moment euh, où nous parlons loolu rek moom mooy solution bi te loolu rek moom moo actuellement pour que nous li nga xam ne moom lañ ci Sénégal bëgg ko def ci Sénégal loolu non nous a donc loolu là leen bëggoon a indil tay, euh, ci ay xibaar yoo xam ni jot on verra nak d'ici là ñu xool. Euh, fan la wànnen di ak ay gëtam ndax li mel wala ndax dinañ euh, wala de toute façon les jours à venir dis-nous, euh, édifier ci un plan de guerre nga xamni Sénégal pour tout simplement neutraliser ki nga xamni mon moy Ousmane Sonko